problème boobu defe naa ne ñun yëpp am ci responsabilité. Eh, njaboot yi euh, waaye tamit euh, collectivités territoriales yi waaye état central. Ah, euh, pour gàttal mbir mi rek damay lancer un appel au nouvelles autorités du pays wax leen ne yaakaar bu rëy moo tax ni ñi fal leen ñu toog fi tey surtout xale yi xale yi ñoo leen fal ñoo xam nañ ko kon yaakaar bi nga moom la xale yi am ci ñoom ba fal leen ni ñi fexe bi yaakaar boobu très rapidement mu mun a matérialiser wu pour que xale mun a toog fii Sénégal fii parce que Sénégal fii nag ku nekk mun nga fi toog liggéey fi tekki fi njëriñ sa njaboot njëriñ sa bopp kon yaakaar boobu ni ñu feewe pour ñu teg fi ay euh, sur place des politiques yoo xam ne dina jural xale yi ay emploi jural xale yi espoir boo xam ne dina tax dootu dem ci géej gi waaw xam nga littoral bi ñëpp a ko bokk euh, man bi ma bi ma doon si lycée Limamoulaye jamono yu filaw yi diggante dëkk bi ak filaw yi amuloon dara waaye tey daanaka tout est construit autorité toujours war topp passion populaire maa ngi li ci réseaux sociaux yi on a qu'à tout raser je pense que loolu c'est pas réaliste soo xoolee littoral bi am na ñoom dañ ci tabay hôtel hôtel yooyu mu ngi employé des des de personnes mun na ko raser am na ñoom dañ tabay kër régime yi fi nekkoon ñoo doon jox këyit ñu dugg ci ay milliards kër yooyu kenn mënu ko raser kon li nga xam ne mun nañ ko sauver nañu sauver loolu ba pare fexe ba ñu bañ a joxati nit ay këyit wala bay leen di jox tey suuf ñu tabax ci littoral bi mais pare ñu mettre en place beneen politique